tàmbalee wala bu ñu ko bu ñu ko bàyyee ci li nga xamante ne mooy commentaire euh, live bi ñuy def nii rek dinañ ko jagleel euh, ki nga xamante ne mooy suñu invité maa ngi wax léegi plaisir la vraiment de le recevoir bon euh, xam-xam du pexe. merci beaucoup papa Makhtar <laughs> c'est vraiment un plaisir. Mm-hmm. euh... C'est la deuxième fois que je viens. Oui, effectivement. Et c'est vraiment, vraiment un plaisir. Donc, di nuyu ñi ñuy suivre ñëpp. Mm-hmm. di leen wax ne maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam. Mm-hmm.

amin amin am na solo bu baax a baax di leen wax rek yéen ñi nga xamante ni ngi connecté wu jamono ji toll ci deux cent et quelques personnes mën ngeen di envoyé seen contribution wala seen i commentaire euh, incha allah bu nekkee question la lu munti doon moom dinañ ko ko euh, yeggee bu nekkee moom ngeen ko euh, jagleel moom suñuy invité Moussa Bal Fofana balaa ñuy sori ci waxtaan bi bindkatu téere nga bindoon nga fi téere boo xamante yow ak Ousmane Sonko Le woon ci waaj ba ñuy waajal local yi ngeen bindoon ko mu nekkoon stratégie en tout cas boo xamante ni bëggoon ngeen ko amal bu nekkee

sur véritablement l'objectif principal de, de, notre forme, de la formation politique mhm. PASTEF, qui porte sur le projet de Nini Diwar, avec, une précision vraiment voilà, bon. Euh, de taille pour montrer que c'est le projet de souveraineté. D'accord. Euh, li nga xam ne moo ne ci téere bi buñ buñ ko doon buñ ko doon euh, ci benn couverture bi ci benn wa mo nek ni mhm. moy mënuñu am développement te amuñu souveraineté les dix fondements de la mhm. refondation d'accord moy manam mënuñu am développement. Mhm. té momuñu suñ bop d'accord waye mom sa bop boobu dafa am ay teggat yu mu laaj ñu war ko teggat ci réew mi. Mhm. euh mom ñu woyé refondation lay faral di teggee teggat refondation yoyu, refondation sur nos problématiques sociétales. Mhm. parce que société moy def moy andi développement. refondation yo xamné ci suñu système de gouvernance moy état bi ñu am tay est-ce que état bi nous avons pu ci liñ ne. Mhm. ba noppi refonder suñu économie. donc ouvrage bi les dix fondements. Il y a trois yoo ça parle de la société. Il y a 3 4 quatre ça parle de l'État. Mhm. mais il y a ci ça parle vraiment d'une refondation de notre économie. Mhm. Euh, livre bi dimi aussi moy souveraineté bi ñuy wax ce n'est pas uniquement souveraineté économique ne sa pas, du ne sa pas économiquement uniquement mais c'est souveraineté civique d'abord état d'esprit là organisation sociale organisation étatique c'est bu mën andi économie parce que société mënoo ne damaa bëgg am koom bi ma bëgg l'État, ça, état nekkul état bi nga am mais mënoo ne da nga war am aussi état bu baax mais cette société ni nga ko organiser ni nga structurer ko donc livre le boo xam quels sont les fondements de la souveraineté Si bu ñu planifier la souveraineté du Sénégal mhm. quels sont les dix fondements yi ñu ko euh, dem na ba nag ba proposer au-delà des 10 fondements les 20 secteurs ministériels li gëna am solo ci réew bu melni Sénégal bëgg vraiment réorganiser pour am système bu baax 20 secteurs yooyu yan vision sectorielle moko wara doxal donc dem nañ ba ba fofu mu nekk téré bo xamné ab yobbal la comme niñ koy waxé ci élection présidentielle yi parce que liñ ci bëgg moy wax askan wi surtout wax régime bi que li nu bolé ak ñom ce n'est pas une histoire de personne ce des indépendances à aujourd'hui dafa am politique yoo xam ne gëm ne mbir mi muy la continuité le cadrage FMI banque mondiale l'endettement euh, endettement pour des infrastructures ba servir d'autres intérêts que les intérêts sénégalais Nous continuité mhm. nous faisons partie de cette génération d'hommes politiques yi nga mhm. à partir de 2024. Mhm. Sénégal dafa avoir le vrai tournant depuis 1960. Au-delà des indépendances, il nous faut, un, il nous faut un État souverain, une société souveraine, une économie souveraine. Parce que tant que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas, nous ne nous faire, ci suñuy intérêt tek ko ci suñuy valeur développement biñ ñu bëgg mënuñ ko am donc loolu la téere bi di euh muy ni nga xamné ma ngi ñaan euh, képp ko xamné rek am nga conscience bobu nga japp ci wasaré euh, manam liñ ci def parce que loolu day tax nit ñi gëna mëna comprendre c'est quoi le projet comme ça nit ñi xamné politique bi ñuy def defuñ ko pour ay doranté ay histoire ay xulo mais dañ ko def uniquement parce que suñu génération dañu am ben responsabilité am taxaway bi wara taxaw. Mhm. wara jël maintenant la bonne orientation pour le Sénégal à partir de 2024. Mhm. am solo bu baakha a baax maa ngi wax légui ce téré benen bi nga xamante ne nga ko da nga ko bindoon ak Ousmane Sonko. ak Ousmane Sonko bi nga tuddee que projet euh, souverain. Mhm. mais euh, yakarna Ousmane Sonko participer ou ci wala indirectement. non bi parti participer wu ci. parce que malheureusement conditions yi nga xamante ni euh, mom le livre bi génne. mais nak participer na ci parce que Mac, tellement on a une connexion intellectuelle c'est-à-dire que dañu briller lu ñuy ce c'est pas pour rien que nous bind livre sur la décentralisation qu'on xam décentralisation c'est c'est vraiment le plan le pan le pan autonome du pouvoir exécutif hum, hum. une vision de la décentralisation moins du ministère mais c'est 10 secteurs hum, dem nañ 14 compétences pour la décentralisation c'est économie c'est de l'environnement, mhm. c'est de l'industrie, c'est mhm. l'emploi, c'est la sécurité, c'est l'éducation, mhm. c'est toutes ces questions-là. Donc nous avons une décentralisation liggéey binti ligue. ci liggéey. Ousmane nan lay gissé ak nu fonctionner. sur le plan euh, du projet de souveraineté sur le plan de la refondation. donc motax ma am courage bu bind téré bu melni euh, biñ ko ko aussi yónnee ko élément yi trop waaw am na ci mbégte trop. pourquoi projet di revenir ci seen i termes euh, projet euh, ngeen ni Pastef projet la aussi liir bi nga tuddee ko projet pourquoi euh, souvent ngeen di insister ci projet. parce que dañu faral dañu dañu tàmmal ne suñu suñu réew politique. ça mhm. tourne autour de personnes. Mhm. loolu culture boobu lañ mus a am. personne personnifier le débat politique jàpp ne mbir mi nit la. Mhm. alors que mbir mi du nit. mbir mi c'est un projet projet moy manam lo xamné analyser nañ situation bi. xamné ne réew mi war na dem fenn. Mhm. ñu yoon mi ñu wara jaar ni la. vision bobu ne réew mi am fu mu wara dem. Mhm. am fuñ ko wara a jaarale pour ñu yegg fa lolu moy le projet. Mhm. projet bo xamné ñepp ko bok té lolu mo ñu bolé ak asan bi tay ji bo gisee ñepp and ci li ñu yëkëti ci idée yi ñu c'est parce que dañ leen a tegal loo xamante ne xam nañ ne lii du intérêt Ousmane du intérêt Balla du intérêt Massamba intérêt askan wi mi mi ci nekk ñii bu ñu leen toppee ci lii réew mi dina soppeeku bañ am réew dëgg ndax réew dëgg askan wee ko moom. <laughs> réew dëgg pouvoir yi fa nekk yëpp pouvoir boo si jël. askan wi mooy décider ku fa war a toog ak ku fa warul toog askan wi mooy sanctionner positivement ak négativement te askan wi mooy mën a contrôler loolu mooy moom sa bopp. <laughs> politiquement da nga wara a am système bu la koy may. té aujourd'hui problème biñ am moy système bi fi né système bo xamné dañ ko hérité ci colonisation bi la. jamais toguñu xalat né est-ce que système bi c'est conforme avec nos valeurs. est-ce que c'est conforme avec nos intérêts. est-ce que mi ngi reposer ci li nga xamante loolu le Sénégal am comme ressource. non non non système bi fi ça sert d'autres valeurs Mais ngi koy wax ne suñu doom mën nañ ba génn école duñ fayda duñ ko dégg et ça c'est un problème parce que tey sénégalais boo ko laajoon quelles sont les valeurs qui étaient définissent loolu la lay mhm. donc on a un problème qui dépasse les régimes politiques. Mhm. on a un problème une société bu nga a été société bu elle a été dominée par la colonisation par l'esclavage. esclavage ñu jóge fi bàyyi fi benn organisation. Mhm. ñun jëluñu temps repenser l'organisation sociale l'union temps repenser l'organisation étatique mm. l'union temps repenser l'organisation économique et tant que nous ne c'est ça le vrai débat opposé chaque fois ils vont nous faire passer pour des terroristes mm. pour des salafistes pour pour pour des des des, casseurs alors que le débat n'a jamais été cela mm-hmm. le débat a toujours été une formation politique bi nga xam nañ ko amuñoo problème ak parti bi mm. biñ tas amuñoo problème ak nit ñi problème idée biñ tek projet biñ tek xam nañ ne bés buñ ko doxalé ci réew mi ñenn ñi fi amone yenn privilège yi. Mm. privilège yooyu day jeex. parce que projet de société bi tek ñun bu amé c'est le peuple sénégalais qui devient le seul maître à bord. Mm-hmm. c'est le peuple sénégalais qui va pouvoir décider ban justice le bëgg ban assemblée nationale le bëgg ban député le bëgg ba nopi yan maire la soxla ba noppi ban président la la soxla te tey ji ku xool réew mi ni muy fonctionner xam nga pas du askan wi mooy décider ban yëpp yan député la soxla parce que booy xool député yi am na député yoo xam ne ni c'est le particulier qui parachute par la liste nationale et ça fait biaiser le fonctionnement de l'Assemblée nationale tey ku la justice ni muy fonctionner mhm. xam ne amul ben acteur bu nekk ci système judiciaire à un moment donné de ta carrière tu nga faire face au peuple sénégalais mhm. ñu sanctionner le positivement ou négativement mhm. amul ci justice c'est une justice ak lu ñu mënti le système nous avons, le système la bu nga le citoyen est absent. alors que la justice est rendue à son nom. à son nom tey jii boo demee ci benn dëkk bu euh, Amérique du Nord. j'aime bien prendre cet exemple pour moi. wan sénégalais yi ne faire évoluer notre système. Mm-hmm. mais Amérique du Nord même le juge bi jugé c'est pas lui qui donne la décision. Moi, son rôle mooy na le procès bi. Mm-hmm yow tan nañ ay sénégalais yoo xamante ni par rapport ak l'accusé niru nañ ak moom profil. ñooy les jurés. Mmh. le procureur amul benn pouvoir lu dul poursuivre. Mmh. amul droit tëj kenn. mënul mmh. def dara lu dul il a juste le droit de poursuivre. le procureur est là il poursuit. ton avocat est, là le juge organise le procès après ce sont les citoyens choisis qui décident ndax liñ fi dégg tegu na ci yoon am teguwul ci yoon xoolal ma système boobu. très loin de ce que nous avons ici. Et le problème, ce n'est pas les personnes. Le problème, c'est vraiment le système. Parce que nous avons hérité d'une ben, structure étatique. C'était fait pour dominer. C'était la colonisation. Donc, nous, dans notre constitution, on dit que effectivement, Sénégal, constitution, nous avons trois pouvoirs. Mais si nous voulons que ces trois pouvoirs puissent fonctionner pour l'intérêt du peuple sénégalais, mhm. il faut que le système politique ou le système de sélection ou le système de sanction

ne buñ buggé souveraineté deug askan wo xamné day fonctionner ci justice il faut que ñu delloo boom ci boy boy ga manam il faut que ñu delloo lepp ci askan wi donc lool dafa nek lu am solo lo xamné projet de souveraineté bi nga xamné mom lañu woté lool la sénégalais yi xam nañ ne ak ñun ñi nga xamné ño ñoo bokk projet bi bëss buñ yalla joxé joxee yi dinañ def réforme yo xamné politicien dëgg du ko def un politicien de métier ñi nga xamné c'est des enfants du système. Mm. C'est des héritiers du système. Mm. Ils sont là. 3, 4, 5 candidats ils travaillent pour la même cause L'élection élection il faut que nous ñi même si on a 10 candidats en réalité on aura 2 candidats. ban ak candidat de la continuité. ak candidat bi ñëw wax changement de cap. troisième voie moutam. troisième voie mënul troisième d'ailleurs c'est des gens qui ont ramené. quand tu analyses leur posture tu sens que ne ils ne comprennent pas ce que c'est que la politique parce que quand tu incarnes la troisième voie tu te dois d'être sur le terrain de manière constante mais troisième voie pas rek bon il y a l'opposition il y a le pouvoir il y a un électorat au milieu ma baye ba élection tous les cinq ans mais ñëw taxaw man troisième voie non souvent ñooñu boo leen di dégg li ñuy wax mooy que ba tey amaguñu participation boo xamante ni yegg na ci cinquante pour cent y a une masse silencieuse boo xamante ni euh, gisul seen bopp ci euh, système bi wala ci anti-système bi hmm. euh, peut-être ñoom ci troisième voie boobu nañu gis seen bopp donc ñoom troisième lu mu tudd masse silencieuse boobu nañu nekk di charmer. waaw mais bu fekkente ne yow da nga nekk un nom politique digne de son nom. masse boobu intéressé la mais da ngay da ngay constituer une ligne claire avec une idéologie claire ak parti bu ko incarné ba nopi pendant 5 ans ñu lay gis ngay positionné wu sur des dossiers ba muñ ba ñu mëna identifier né groupe di bi moy parti troisième voie bi xam nga tay le régime au moins ñëpp xam nañ né ñom ñu ngi ci liñ nekk nëbbuñ ko mhm. ñi nga xam ne ñu ngi dans l'opposition ñu ngi nekk ci liñ nekk nëbbuñ ko mhm. mais tey mënoo maa citer koo xam ne tey il constitue une force politique réelle mhm. et qui se réclame de troisième voie man je veux être très réaliste dans manière bi may analyser. Thierno Alassane Sall. oui mais bon c'est quoi ces résultats. troisième voie du nit du nit ki yaay taxaw wax ne yow yaay troisième voie. <laughs> troisième voie bu dee am ci réew mi il faut que ñu ayons ay ñu dem ay élections. gis les candidats troisième voie aujourd'hui ils font quinze vingt pour cent. <laughs> xam nga loolu consistant. effectivement ah, là on se dit. Bah, il y a véritablement une ben, troisième voie au Sénégal. Je n'ai rien contre ces, gens-là qui se réclament troisième voie. Mais moi, je considère que taille, on liste Assemblée nationale, qu'est-ce que représente la troisième voie Parce que nous non aligné. Quoi Ça représente quoi concrètement Donc, positionnement politique, de mm-hmm. question avec ben Voilà, voilà, voilà. Non, mm-hmm. c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a un électorat mm-hmm consistant qui est un électorat décisif pour incarner cette troisième voie Et aussi il faut qu'on soit sérieux c'est bien de vouloir incarner troisième voie parce que bëggoo nekk fii bëggoo nekk mhm. mais c'est difficile de théoriser ko mais est-ce que politique sax déjà accepté que nga ni euh, position da ngay taxaw ci digg bi gauche, faro gauche faro droite est-ce que politique accepté na moo tax ma ne la pour des raisons de positionnement mhm. nga ne rek bon faire bëgguma fee parce que amna na ko ko occupé ba noppi téye ko. Mhm. fee bëgguma fee bokk amna ko occupé léegi nak yow nga créer né fo bëgg taxaw mais boudé fi nga bëgg taxaw dara néwul wala fi nga bëgg a taxaw tay mëno théoriser lo xamné tay boko boo ci table ñu né li sa théorie bi mhm. c'est praticable et puis et puis on peut le constater sur le terrain nga dem élection am ay résultats am yoo ça c'est de la réalité politique. donc positionnement bu mu la mu ko ngay positionner wu ci lo nga xamné bo démé élection tu te retrouves avec un 2 3 pour cent donc man li quand tu analyses aussi la réalité de ce pays aujourd'hui le vrai débat mhm. le seul débat qu'il y a dans ce pays c'est est-ce qu'on veut continuer à gérer ce pays de la manière qu'on le gère mhm. ou est-ce qu'on veut véritablement poser la vraie question moi, Sénégal est souverain mhm. Sénégal bo ses ressources pour exploiter ko dafa nangu jël pour jox pour Mhm. Voilà les vraies questions. Mhm. Dafa nangu changer son système éducatif pour construire des vrais types de Sénégalais. Dafa nangu changer sa justice, changer l'Assemblée nationale, changer le pouvoir exécutif, djel réew mi yëpp tënku ko ci li askan bi bëgg. Voilà la vraie question. Il n'y en a pas deux. moo ku ci bëgg positionner positionné wu sur des histoires de troisième voie mhm. wala ku ci nekkoon ci régime bi pendant 4 ans 5 ans 6 ans xëy suba teel di wax discours Ousmane Sonko tam do jall parce que y ko xamné quand je l'écoute je souris quoi dama naan mais. non mais notre ancien premier ministre le, gentil Boun Abdallah mais et pourquoi pas Mimi Touré. non Mimi Touré ça, ça va encore. Ah, parce que jege na non parce qu'au moins. à un moment donné non valable ci euh, Boun Abdallah euh, Diagne, valable ci Mimi Touré. peut-être bien <laughs> mais. quand quelqu'un écrit un livre, moi, moi je prends le temps de lire le de Lire, absolument. et, quand je l'écoute, je dis, mais c'est bien. Mm-hmm enfin quelqu'un qui, <laughs> qui servait, quoi. Parce que quand on me parle de l'État stratégique, ah ben c'est bien. Parce que moi, dans mon ouvrage, je parle d'un État planificateur, d'un État actionnaire et d'un État décentralisé. D'accord. Moi je gëm type d'État bi nga xam ne moo mën a ne Sénégal ci fait des yi. Mhm. Moi État bu nga xamante ne nii day am un conseil scientifique sénégalais pour le développement pas un conseil économique pour nga il y a mais un conseil scientifique sénégalais yoo développement C'est une science le développement nous ko Nous la appliquer parce que la planification c'est l'usage de la science de la mise en œuvre des politiques publiques. donc l'État bu bu gëmul xam-xam faire état c'est un état actionnaire Mais, madame, si vous loo c'est souverain bu gisee stratégique mhm. da koy jaral alal recruter ay nit dugg wo ay ay sénégalais yu nekk ci privé bi and ak ñom jox leen alal jox leen équipement neul leen ay ca loolu ñu koy def avec FONSIS mais niñ ci def dafa tout il faut il faut il faut multiplier que il nous faut une agence des participations de l'État français comme la France qui aujourd'hui a mis 71 milliards d'euros mhm. comme d'actifs de portefeuille en juin 2000 en juin 2021 je ne sais pas si vous imaginez si vous imaginez 71 milliards d'euros l'a injecté pendant ce temps la France nous dit euh, sortez de votre économie pri privatisé dugg na mhm. donc moi je crois en un état. Comme mi ngi jàppale entreprise am yi. jàpp ah, tey jii Alstom mi mu fi andi. loolu boo xoolee tey jii. c'est souvent sax seen président bii voyage ay euh, entrepreneur lay dans toutes ces entreprises là l'État est actionnaire L'État est actionnaire. Mhm. chaque année entreprise yooyu dañuy verser ay dividendes état. effectivement donc voilà loolu foofu foofu la réew àdduna toll ba noppi ma gëm un état qui décentralise. Mhm. man dama gëm ne territoire départements département mairies, ce maire yi liñ mën franchement l'État ne peut pas ci avec un président et 30 ministres il faut décentraliser il faut donner des moyens mais c'est dommage que euh, un premier ministre soit ba ba ba le lion le papillon <laughs> c'est bien mais mais ça aurait été bien de prendre le courage mm-hmm. mais de de de taper sur la table mais est-ce qu'à sa décharge appliquer euh, chef de l'État comme premier ministre. mais justement et c'est là que notre génération au moins il faut qu'on nous reconnaisse le mérite. Mhm. que quand on a ba gëm pour salaire. il pour poste pour tour nous fa tam di nous nous, ñu nous mhm. dañu jël suñu réponse dañu démissionner nous avons démissionné, di attaquer mhm. je à l'aise je suis le premier à attaquer Amadou Ba sur gérer l'endettement je suis le premier à dire au président Macky Sall émergence du nii du émergence xeex mhm. bataille tu veux que ton économie émerge Il y yi bëgg gens yow bëgg consommateurs mhm. l'émergence c'est une bataille mhm. contre FMI Banque mondiale et les autres Ce n'est pas de la complaisance on l'a on l'a dit dans ce pays donc pendant 12 ans on a refusé des opportunités on a refusé toute forme d'offre parce que justement nous am besoin de nous dañ ko mhm. et c'est très facile maintenant il y timbir, un am ay responsabilités am positions appliquer de mauvaises politiques ces politiques sont mauvaises et catastrophiques tu le fais pour des raisons je ne sais ba à quatre mois des élections nga euh, maintenant, euh, je suis le lion. Alors, hmm. euh, bon, voilà quoi. d'ailleurs <laughs> tu dégg dañuy dellusiwaat ci projet vrai que euh, parce que yaa ngi wax soppi système bi changé ko mais du discours quand même boo xamante ni bu bees la ndax Abdoulaye Wade ba avec ñëw hmm. ak Bissar c'était hmm. bi sax le changement. gisoon li nga xamante ni ajustement yi fi socialiste bi doon def ak que koom comme comme ñu ko doon gérer ak yu ni mu ni que il fallait que ñu changé. muy ni soppi ñëpp ànd ci soppi soppi mais finalement ba mu en 2000 dafa mel ni dañ ko de dévoyer. Mhm. lan moo ñuy jox tey jii garantie que ni euh, Pastef projet bi ngeen di wax nii boo rupture radicale yu sénégalais yi soxla di ngeen ko indi euh, te doo leen def ni euh, merci beaucoup effectivement Abdoulaye Wade avait compris qu'il fallait un changement hmm. quand il a vu Senghor et Diouf il a compris que fin de jëm nii Wad est arrivé au pouvoir en âge où on part à la à la retraite xool ko ci ñu suñu entourage rek ñi nga ils avaient l'âge de Wad boo leen xoolee xam ku mais ils n'auront pas la capacité qu'il faut de gérer les hommes et Wade avait un sérieux problème d'hommes ba puis aussi il y avait aussi cette difficulté de de de de de changer système pendant longtemps dugg nga ci biir ministre génna mm-hmm. dugg nga ci habitué wu ci fonctionnement bi pour nga où E-, être un élément oui changer il faut que il faut que il faut que un élément de l'intérieur parce qu'une une fois que tu es de l'intérieur et que tu t'habitues au rouage du système c'est très difficile de t'opposer au système donc ça il faut il faut il faut l'avoir je l'ai remarqué et puis c'est une vérité par rapport à la difficulté de Wade Amon Wade aussi avait peut-être le problème parce qu'il il était très libéral bien qu'il se réclame libéral social il était très libéral et puis on a eu tous les problèmes on a vu tous les problèmes qu'on a eu donc l'autre aussi n'est na alors ramener, poser euh, posé problème pour que nous puissions réussir comme il le fallait mm-hmm. euh, libéral bim Mon côté il lui faut planifier les résultats sociaux soxla mm-hmm. par exemple man je me réclame libéral social mm-hmm. man je considère et c'est pour ça que je parle d'un état planificateur mais aussi d'un état actionnaire je considère qu'il faut planifier si tu veux avoir cadre de vie bi mhm. niveau de vie c'est la planification il faut nga am objectif poser acte actes pour contrôler changer l'eau. Mhm. mais parallèlement il faut libérer les énergies et laisser les gens entreprendre les former les aider bàyyi ba maturité de tous les moyens pour que nous réaliser leur potentiel parce que mhm. tu ne peux pas contrôler un individu donc koy liberté pour mon créer maintenant le gros problème aussi li ga li dalal nit ne ëllëg ñun bu ñu ñëwee lii ñu gëm daañ ko def mooy derrière le discours il y a le parcours. xam nga koo xam ne pendant 12 ans. oui Ousmane Sonko tey su ko neexoon lu mu bëgg am da koy am il a refusé. Mhm. Ousmane Sonko sax sori na man mii tey su ma neexoon mooy loolu. leneen saabu du faute boppam mais à plusieurs reprises su ma sañoon su ma neexoon bu doon bu doon poste ak million moo ma intéressé tey kenn leneen la la ñuy wax donc nit ki amené à yenn position ni au dugg ci gouvernement le conseil technique pendant neuf mois que démissionné et dans Pastef passé, nga xam tas profil des gens ils ont fait le choix de s'opposer à quelque chose malgré les opportunités hmm. des gens yu nga inverse bi la ñuy def bu leen neexoon dañuy dañuy transhumer dans l'opposition mais duñ transhumer vers le vers le pouvoir c'est-à-dire que d'année en année muy gën a metti euh, nos vies sont en jeu nos libertés sont en jeu nos postes sont en jeu suñu tout tout tout est en jeu mm-hmm. mais pourtant on est là donc nit ki dans bu fekkente ne mi ngi dans une mi ngi opposition nanguwul dugg de temps en temps ñu jox ko benn salaire benn poste euh, mu defar waat génnaat casse il il il accepte d'être un professionnel dans le privé mhm. des fois il mu nangu immigrer pour garder ngoram mais bëggut a bokk ci loo xam ne ëllëg dañ naan ko ci nga donc parcours boobu ak actes yi ñuy posé war na dalal xelu nit ñi mhm. bi ci topp mooy mbir mi du affaire parti politique combat d'une génération mhm. tey jii am na ñoo politique gu beaucoup bokkuñ ci parti politique ça les intéresse pas mais débat bi ñuy posé débat bu les pas. Si identifier les 10 fondements dont je parle dans mon ci mon livre quand je dis devons développer le Sénégal nous devons les vraies valeurs qui nous permettent de produire un bon citoyen Que politique nga politique nga politique on est d'accord parce que nous devons xam nañ ne suñu njaboot gi mhm. bu ñu ñu bu nous nous... il faut que nous ayons des des vrais africains des vrais sénégalais Si mhm. nous ne suñu askan bi Si ñu mu avancer bu il faut que nous ayons un système politique pour que nous day sous le contrôle du citoyen Ce nga politique nga que politique fondement de la fondation la intéresse mhm. parce que citoyen bi dafa un système politique bu koy may mu le juge des libertés ou le procureur le conseil supérieur de la de la magistrature ñu bañ de waxati magistrature mhm. wax conseil supérieur de la justice ba noppi ñu le conseil supérieur de la justice, nous ëpp ay nit ñuy tànn la mhm. nga loolu mom, askan député Députés, ñu font depuis les départements président de la république nous obligé ko contrôler nous pour pour décentralisation système politique nga politique génération La mhm. société bo ne xam-xam la société bu xam-xam société La société bu gëmul science liñu gëm tappale lijjanti loolu ken munu ci am développement il faut que ñu fexé ba suñu doom yi ñu lo leen xam-xam am ay borom xam-xam parce que lu lu sa askan bëri xam-xam nga am des inventeurs am des ingénieurs mhm. am des techniciens am am li nga soxla pour le changement parce que société moy défar am rew te le développement ce n'est rien d'autre

du état planifié ñun avons le niveau de vie bu baax dañ soxla santé éducation cadre de vie aménagement du territoire urbanisme gestion de l'eau mhm. état bu gëm bu gëm science sénégalais soxla nañ mais aussi état boo xam ne day ne ci sénégalais yi di leen jàppale loolu état sénégalais l'état soxla nañ ko mhm. état boo xam ne décentraliser sénégalais yi soxla nañ ko mhm. ma ñëw ci sur le plan économique indépendant jusqu'à maintenant boo demee monde rural 60 ont de l'eau am y a 40 qui n'ont pas l'eau est-ce que c'est normal réew mu nga xam ne tey bu nit ñëwoon tey bëgg ubbi usine ci réew mi mhm. ñetti mbir la lay laaj ndax am nga ko industrie bi ñu naan il faut nous consindustrialiser li mu lay njëkk laaj mooy ndax am nga gaz mhm. parce que xam na ne électricité dañuy soxla gaz mhm. premièrement li laaj mooy ndax am nga ndox parce que usine dafay soxla ndox ba ca des moy est-ce que am nga est-ce que am nga matière première bi nga xamné mom la wara utiliser su wara def industrie mm-hmm. est-ce que ñun buñ ñu développement donc mën nañ fay nek duñu régler la question de l'eau pas uniquement pour de l'eau potable mais de l'eau suffisante pour qu'on s'industrialise mm-hmm. la question de l'énergie tay jii ñoo ngi baril de pétrole bi yéeg na mm-hmm. commencé couper électricité kër yi sax amatuñu légui bu kër yi amul té suñu économie soxla électricité fal fal lañ jëm mënuñ jëm ba noppi bi ci topp tey képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci dara da nga soxla ay équipement mhm. da nga soxla technologie da nga soxla modernité parce que béykat américain bi ak béykat sénégalais bi li leen wuutalee en dehors du fait que kii moom moom suufam kee moomul suufam mhm. mooy kii équipement yi mu yor kee yoru ko mhm. donc tant que wuñu des équipements yuy permettre ñu produire en qualité et en quantité une économie du développer et enfin quand on parle de bâtir notre économie sur une révolution agraire quand on parle de bâtir notre économie sur une révolution industrielle, Pape mata 10 éléments, les fondements du projet souverain. Mhm. On n'a pas besoin d'être politique pour savoir ce que nous Donc, le débat que posé, le débat que et j'aimerais vraiment que l'élection présidentielle qu'on pose les vraies questions qui intéressent les Sénégalais. Et ce sont ces dix questions que je viens de vous. Dix fondements, c'était, c'était, qui c'était, plus Sénégalais, <laughs> amna solo bu baax a baax mais bo waxee wax élection aussi wax euh, processus bi ak participation bi euh, tey jii Ousmane Sonko mom nga tudd ba tey jii euh, mbirum parrainage am leerul DGE ak lu mu tudd waa Sénat ñi ngi delonté li nga xamante moy ay communiqué Sénat néna na DGE mu jox ko fiche de parrainage DGE wëlbatiku ni ko li tax jox ko ko moy Ousmane Sonko bokkul ci li nga xamante moy mooy fichier électoral bi tey mu naa nañu recevoir ki nga xamante moy mooy mm-hmm. honorable député mais luñ ko xamal rek mooy mooy que li ñu waxoon ci sen communiqué bi mo valable batay que mm. Ousmane Sonko tant que euh, nekul ci fichier électoral duñ ko jox euh, fiche de parrainage est-ce que tey jii nekkuñu quelque part di compromettre li nga xamantene moy sen seen projet boobu mënuñu compromettre le projet parce que le projet le peuple l'a déjà adopté tay Ousmane Sonko su nekkee ci kasso bi mm-hmm. ñu tas parti bi tej des leaders mu tok ci kasso bi téye parrainage ci biti les Sénégalais ont déjà adopté le projet 2024 il y aura un revirement dans ce pays Nous avons essayé de nan lay mais li wér est wóor le peuple sénégalais aujourd'hui xel lañ taal nit ñi été xam sonn pendant 12 ans ci ñoo été jox 40 000 milliards 40 000 milliards lañ jox Macky Sall pendant 12 ans vous tu tu t'imagines ce montant 40 000 milliards am sénégalais yu amul ndox. Mhm. am sénégalais yu amul électricité. am sénégalais yu amul sécurité. am sénégalais yu soxla xaalis pour lancer benn business mënuñ quoi am. pour tout lu lépp soxla. Mhm. loolu la réew mi toll donc ñoom bu leen neexee bu leen naqaree. élection yi ñu jëm. Mhm. ak lu nous mën def. le peuple sénégalais leur montrera que seen wàll dafa wëy. li ma leen di ñaan nag mooy. bul buñ ñàkk ba noppi ñëkki. day day gën a ñaaw. parce que tey bu leen neexee ak bu leen naqaree. est-ce que ñeenkiwuñu ba pare. ci lañ dëkk mais loolu du du du régler benn benn problème. Mhm. day gën a ñaawal jël bi rek foofu rek lañ jëm ñaawal jël rek parce que léegi réew mi ñëpp xam nañ ne ñii dañuy xunt. xam nga des fois xunt mooy temps carte bu ñuy carte nga nga dem ba nga xam ne yow mais bi nga yor dara baaxul nga nga nga jaxase carte gi mer. Mhm. fi ni nii ci loolu lañ nekk mais mënuñu bañ a dem élection. élection moom dina am ci réew mi. Mhm. te boobaa sénégalais ñooy décider. Bobanak, nag dinañ xam doom neex na ndeyam tey nak lu leen neex day def lu leen neex mën nañ ko def li wér te liñ jëm yépp tey justice ñun nous savons que le droit est de notre côté droit est de notre côté. Mhm. gis nañ li xew Ziguinchor man j'ai suivi maître Doudou Ndoye mu nekk une référence. Mhm. procès yépp wane na ne amul benn procès bu Ousmane Sonko subir bu ko war a mën a tere mu bokk ci élection yi amul malgré tant bi mais bu droit bi nekkee seen côté administration bi euh, fétéwul sen côté administration bi aussi war leen délivrer li nga xamante moy fiche de parrainage te ko amul euh, sen dossier euh, boo tour ñu nénal ko parce que des doon dossier bu incomplet lan mooy doon seen taxawaay boba xam nga c'est vrai le droit est de notre côté mais la force n'est pas de notre côté. Oui. sauf que nguur gi dafa japp né mo fi ëpp doolé mais ëpp fi hmm xam nga lolé erreur bi des fois ngay fowé dara yaakaar ne yow rek ko yoroon alors que ne non. ëppoo fi doole de. Hmm. bés dina ñëw ñu organiser ay jour boobu kan moo ëpp doole ci réew mi sénégalais yi. Hmm. fii yàlla rek moo yor doole. moo tax nit da nga war a nite nite mooy nga xam ne am na instrument yoo xam ne waruma ko jëfandikoo parce que bu ma ko commencé dafa mel ni suñu borom lay ko ndax jaay doole justice wax nga ne du ma ko appliquer loolu jaay doole la mais loolu boo ko defee défier woo nit ki nga ko def suñu borom nga défier. té suñ borom nak mom matna matna mbeur na li ne suñ kanam du sori man lima gëm. té bëggam ko. moy mhm. dinañu def lu né waye ñun xam nañ suñu responsabilité. je l'ai toujours dit la bataille sera politique mhm. ak lu mëna xew projet moo ñu opposé ak ñom du mbiri justice du mbiri militarisé du mbiri ciow du mbiri terrorisme du mbiri salafiste dara opposé wuñu lu teg nañ ci table ji xam-xam tek ci table ji deug tek ci table ji liguey pour sénégalais tek ci table ji yërmande pour sénégalais sénégalais xam nañ ni ñi bu leen joxé réew mi ñu gis luñu musul gis ci Afrique xam nañ ko loolu lañ ñu guuxal loolu lañ ñu méré loolu la ñuy xeex ak ñun mais li am solo moy ñun dañoo jël yépp jox ko askan wi. mais ñom xex bi bu ci si ndam moy projet bi euh, dootul antu de. duñ ci am ndam. comment. parce que Pape martar ay élection lañ jëm élection day am ci réew mi mais élection dina am peut-être interrogation est-ce que Ousmane Sonko dina bok ci élection yoy xam nga lepp lo xamne dañ war nañ ko def. Mhm. pour Ousmane bok dañ koy def lepp lo xamante ni rek yoon mayee nako ñu war ko def pour Ousmane bok dañ koy def mais liñu wara war Ousmane reste le maître du jeu et je connais mon frère Ousmane il est responsable il connaît l'objectif et il reste le maître du jeu. C'est-à-dire que si nous jàppee que c'est parce qu'il est en prison qu'il ne peut pas les faire. il se trompe Ce ci kanam raw li bët li may wax nit ñi rek mooy bu kenn tiit bu kenn xàtti. li ngay wax candidat de substitution lay ñuux non ce waxu candidat de. Hmm. xam nga que je veux dire, wax rek Ousmane Sonko reste le maître du jeu politique. Hmm. ku peut être parrainée. Il a xam responsabilité Il ne peut pas man boo gisee je suis zen aw ma benn problème je leur fais face je leur oppose le projet parce que xam naa ne terrain boobu la ñuy daw foofu ñuy daw man falaa leen di fekk xam nga chinois yi dañ ne combat ton ennemi là où il n'est pas mhm. man je sais que là où ils ne sont pas mhm. mooy terrain xam-xam dëgg liggéey ak yërmande ci askan wi foofu moom newuñ fa mhm. foofu lay dem la ca des man xam naa ne Ousmane je le connais bien c'est un homme responsable liko war def et c'est à lui qu'appartient de mettre en place la stratégie qu'il faut pour défaire ce régime té lolu amuñ ci sikki sakane lepp lu war dana def te xamna limi def man j'ai une confiance complète et totale en lui <laughs> amna solo bu baax a baax di ko Moussa Ball Fofana moy suñu euh, gan tey jii ci jotaayu PMD ñi ngi doon waxtane ci terre bi mi ngi waxtane aussi euh, ci walum euh, projet bi nga xamante aussi ba tey koy fessel projet bi nga xamante bëgg ngeen ko indi Sénégal bis bu Sénégal yi accepté jox leen li nga xamante moy sen confiance 2000 2024 deux ci lool sax nañuy das maa koy wax sànq ba mais da nga koy fenatul est-ce que da nga am confiance wala da nga nangul euh, gis réalité bi en face euh, da nga nek dans le déni que ni ñom seen i yépp moy fexé ba système bi ñi wax diko décrier mu wéy am fi ndam euh, té jaral na leen lu né est-ce que mesurer nga quand même li ngeen xamante ni ngeen kay combattre et aussi gravité yi nga xamante mo nek derrière seen combat boobu noonu. mais on mesure la gravité Ousmane Sonko ki ñu bëgg mi ci kasso bi on mesure la gravité combien de gens sont morts on mesure la gravité. Combien, moi je suis membre du cabinet, combien de personnes l'ont assisté Combien de foyers nous en, en détresse mmh. Combien d'arrestations on vit On garde le sourire parce qu'on doit garder le sourire. Mais dans nos cœurs, ça saigne. Vous souffrir en silence. Mais bien sûr. Mais nak, difficile a toujours été le, le, le, le chemin. Amna aduna, tu prends tes responsabilités. Mhm. Mais émission je ma waré mais c'est un bon pour parce que tem nga génn ñu arrêté la. mais est-ce que est-ce que est-ce que voilà on est moo tax bu ñu ñëwee toog waxtaan foo kaf rek parce que àdduna la. Mhm. mais nous savons très bien li nekk suñ kanam xam nañ ko. système bi leen bàyyi. mais duñ ñu mës mais l'important mooy justement li ma la wax sànq mhm. nous nous savons qu'ils ne sont pas les plus les plus forts. askan bi moo yor doole ji. ki ci gën a fort mooy suñ borom d'abord. subhanahu wa il est juste il est bien mhm. il est bon C'est boko que je il est juste il est bien il est bon te def ci koy fay mhm. ba nga kuy mhm. nga tard dina régler xam nga ko kon da ngay da ngay ci li nga politique suñ borom la bëgg ba mu ba mu ne dafa wàcce aada njabo Adama ci kaw suuf. ba noppi ne ko da nga bëgg ma bëgg nga nekk sa représentant nga nekk sama représentant. daf ko am ñaari yu mu ko tere am lu mu ko dénk def ne ko bul tuur deret bul jaay doore mais nanga nga doxal ci xam-xam. moo tax ba malaaka yi naan ko ñii nga nar a ci suuf si tuur deret ak jaay doole lañ fi nekkee mu ne leen noo xamal naa leen lu ngeen xamul. xam-xam wala le savoir. moo tax tubaab yi nga xam ne ñoo ñu ëpp xam di ko doxal sax ñoo ñu gën a développé. Mm-hmm. yàlla dafa logique. képp koo xam ne sa aduna da nga ko teg ci science ak savoir. aduna mhm. la lay wuyu da ngay am mhm. développement. peu importe nga gëm nga ñàkk ko gëm. d'accord donc moo tax ñun. Mhm. dañu gëm li nga xam ne dañ koy def. ngëm gëm lañ ci demee. responsabilité tooñuñu saagawuñu duñu ñàkk yar ak teggin kenn mais xam nañ fii metti te foofu lañ ngiy dóor mooy maanaam xam nañ ne ñoom incompétence notoire lañ nekk ci réew mi. amuñu benn yërmande ci Sénégalais yi xam nga kuñ ñu jox quarante mille milliards. mënoo régler problème benn kooku yërëmoo ken so len waxe ñu na la non amna di yu baax. wala budget ba nga yok ñu jël nañ ci 3000 ñu ci 7000 milliards. voilà mais budget ba nga yok tu en fais quoi. aujourd'hui def nañ enquête. oui Mbacké moy département bi ëpp nit ci Sénégal jamono ji. nañ taxaw fofu est-ce que du sen liguey est-ce que du Ila Touba bi moo tax ba nit ñi euh, jóge Dakar dem dëkk ji Mbacké lecture la. lecture la mais li gëna am solo mooy quand un département bo xamante ne amul boom économique Mbacké do tudd Mbacké né économie bu spécial non non Non, non. Mbacké c'est de l'agriculture munoo den Mbacké c'est de l'industrie munoo ko wax mhm. mais sa population vient d'exploser mhm. parce que le monde rural est en train de se vider pour s'agglutiner à Dakar à à Mbacké mhm. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne parle pas même d'urbanisation on parle de rurbanisation moi c'est des ruraux qui viennent qui quittent pour s'agglutiner en baquet. qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le monde rural est en train de se vider mhm. monde rural bi nga xam ne ñoom ñoo waroon a bay ñoom ñoo waroon a sàmm ñoom ñoo bàyyi di agglutiner à Mbaké, di agglutiner à Touba ba noppi ñëw aussi dans la banlieue ba Maxtaar demal na bàyyil ba week-end mhm. dimanche nga dem ci yenn plage mhm. au fin fond des zones comme ça. c'est des charrettes que tu vois là-bas. c'est le monde rural que tu vois à Dakar. La Grosse, plage la plage Malika. Malika plage de Massar Jacques Mbao toutes plages oui week vous allez voir que c'est des charrettes et des et des et mhm. dynamique puissance en mouvement. Mhm. et ce régime n'a aucune conscience ce pays est en mutation la ruralité c'est 50% de la population si la ruralité est synonyme de pauvreté de de souffrance de malnutrition mais c'est la catastrophe Taïdi, le Sénégal dafa avoir une politique nationale sur la ruralité parce que 50% des Sénégalais monde rural nous dañu une vie rurale bu symboliser l'abondance symboliser le progrès symboliser la modernité. tey loolu moo waroon nekk suñu objectif numéro un naka la ñuy ba ki dans le monde rural nek zone bi nga xam buñu ne monde rural ñu ne yu lekk ga doyna na. kër ya dafa yaatu jamm dafa am productivité dafa am. ba noppi am nga fa technologie. am nga internet am nga ndox am nga courant. tay ji loolu mo waroon nek suñu objectif politique nationale de la ruralité. Mhm. Pendant ce temps, on émet met un, pays, un PUDC e pour 100 milliards par année. 100 milliards pour 50 pour, pour millions de personnes. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui monde rural, c'est plus de 9 millions de Sénégalais. 100, milliards, 100 milliards, l'an le mène. Si nous avons un courant, nous avons un courant est-ce que fii tey boo un courant nous avons problème non tu as besoin de services municipaux nécessité nécessité mhm. quand j'entends des cadres haut placés non def nañ temps ci ndox def nañ temps ci électricité mais ñoom ñi nekk ci zone urbaine bi nañ leen jox courant ak électricité te bañ leen jox luñ ko fay emploi buñ ko fay nañ leen jox courant électricité bañ bañ leen jox école yi ñu soxla service yi ñu soxla tey lu ñu soxla dans le monde rural permis carte loo soxla mais li ñuy daj xam nañ ko éducation santé surtout économie rurale ñu ne ñu ne ñun réew lañ bu nga xam ne toute suñu économie yëpp dafay reposer sur napp bay foresterie. élevage mais comment ça se fait que ñoom ñi nga xamné ne ñoo ne ci lolu nek ci mhm. ndol ñoñu et je le dis. tant que ñoñu nekkuñu ci opulence ci richesse. oui réew mi du mësa développer développé mhm. nañu taxaw tuuti parce que effectivement ni nga waxé non bañu ba ñuy nekk xale loolu lañu doon jangal que ni. Euh,